ko juróom benn ingénieur te ñeenti jigéen bokk ci ñoom ñoo daal di composé bi les trente neuvième ñoom nag ñu bokk ci ay spécialité yu wute. ci lépp lu jëm ci suuf maanaam ci or maanaam ci ndox jëm ci pétrole jëm ci carrières yi béton yi ñun suñuy xam-xam ci loolu la màcc jëm. si jamono ji nga xam ne réewum Sénégal mu ngay waajal exploitation pétrole ak gaz directeur général école bi daal di xam ne ni réew mi. mën na wéq yaakaaram si leen ndaw. ndax xam naa ne am nañ euh, euh, mën-mën gi xam-xam bi pour euh, lu jëm ci pétrole ñu yeggal ko fii réew mi yaakaar wala lu gën a kawe sax njort ci fi ñu yaakaar ne que pétrole mun na fa dem ndaxte seeni seeni mag li ñu def ci secteur mine def ko ci cimenterie yi ak yeneen secteurs yi ñoom. war nañ ko mën a def ci pétrole bi ñu tollool. yaakaar bi nga xamante ne yile ndaw fas nañ yéene yeggali ko te nag ñu daal xam ne ni que dinañ relever défi yi. am nañ resource yu bari te loolu yëpp dafa laaj ay doomu réew mi taxaw jéem kaa exploité bañ am benn euh, euh, ressources humaines locales boo xam ne nii dinañ mën a jiite liggéey boobu te ñun aussi jàpp nañ ne formation bu ñu am. nga xam ne nekk na formation boo xam ne yombut jàpp nañ ne tey jii pare nañ pour défi yu ñuy xaar ëllëg ñu relever ko jàppale ba apporter notre pierre à l'édifice pour développer suñu suñu réew. si bile cérémonie daal nañ fa amal itam ab remise de diplôme de reconnaissance jagleel ko ñi nga xamante ne dañoo daal di liggéey lu am solo si bile école nationale supérieure des mines et de la géologie.